seytaane rajim bismillahi rahmaani dañu teew fii tey euh, mën nañ wax ci turu Serigne Moustapha ndax sëriñ Moustapha la Cheikh Sidi Moukhtar santoon mu ñëw fii tey teewal ko fi ñëw na fii ci suba daf maa woo jotuma ñëw na fi ci suba ba dellu ma ñëw teew fi euh, ngir sama diggante ak Serigne Cheikh Aliou waaye ngir diggante sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh Aliou waaye diggante sëñ Sidi Mokhtar ak sëñ Cheikh Aliou kon mën naa wax digganteem ak njaboot gi yëpp ndax ab diggante la boo xam ne du moom moo ko sos du ñun ñoo ko sos du kenn mu ko sos yàlla moo ko sos ndax yàlla bi mu boolee Cheikh Mouhamadou Lamine ak Cheikh Moustapha boole leen wenn waajur muy soxna Aminta Lo di jigéen joo xam ne mën nañ ni lim fi def bëriwul ñu ko fi def. Euh, ñoom ñu tam boole gi leen yàlla boole ñu nangu ko ku mag ci kër seex Moustapha yaay yilif mag ci kër sëñ Baara loo digle mu def te doo leen séen ci la ñuy tere ku mag ci kër sëñ Baara yaay yilif kër Cheikh Moustapha loo leen digal ñu def te doo leen séen ci lu ñu tere euh, bu fekkoon dafa féete genn wet ñu ne ñu ngi koy wax waaye demagul ci wet ga ca des sëñ Aliou jiitu na fi euh, sëñ Cheikh Gaynde ma jiitu fi ak ak ak ak sëñ sëñ ak ñeneen ak ñeneen. sëñ Abdou Aziz jitu fi sëñ sidou Mokhtar mi jitu fi tay mak fep ta fu ci nek lañ lañ doon wax demb ak barki demb nit ñi di ko ci seeni nopp loolu ñu di ko loolu mo waral Cheikh sidou Mokhtar bu mu diké nek tok nek Serigne bar nek Serigne Modou mustapha waye man na wax nek Serigne Touba muy muy muy la ko am liggéey bo xam ne eh, nañ wax dafa taxawoon man nañ wax duma ma wax dafa relanti damay wax dafa taxawoon ba ñepp xam ni taxaw na tam doon lu am njariñ ci nit ñi ndax nit bu gané aduna ci am ndox lay lay lañ koy ci lañ koy sellale bañ man ko laal nit itam bu génné aduna ci ndox lañ koy sellale bañ man ko laal te serigne touba ñaanon leppam ci dëkk bi leppam lolé mu ñaanon nak am loxo yo xam ci lay jaar loxo yooyee mën na wax yalla boole ci serigne Cheikh Aliou mi mu am liggéey bu mu tambalé won aduna sepp tek gis ko xam njariñ li xam euh, jëf gi mu ko doon jëf ngir sëñ Touba xam lu baax li mu ci doon jëf di ko dox di ko wax yàlla dogal mu dem ba am sa ci ab diggante yàlla dogal bi Cheikh Sidi Muxtaar ñëw woo ko moo ko wool boppam ba ba mu dellu si mu wax ko nii lii damaa bëgg nga téyel ma ko te toppatoo ko te la nga ci yéene woon nga yeggale ko jëf ci la nga xam ne waroon nga ko ca jëf hmm. ndax sa maama ko moom tey te bu ko sa maam moomee kon mën nañoo wax ne yow yaa ko moom damay fàttali rek tuuti dafa am ñu bari ñoo nga xam ne euh, yenn saa yi dañuy réere mbir li ñuy réere mbir mooy sëñ Saliou ci boppam de damaa mas a toog di waxtaan moom man ak moom ak piccam yooyu ko wër rek ñuy wax di wax ba yegg ci menn mbir mu ne ma yéen day da war a xam seen bopp bu baax ma ne ko ah, mu ne ma ëpp leen ay at moo nu bàyyi fii nu toog waaye ëpp leen ci sëñ Touba bàyyi wuñu fi. Mm-hmm. daal di ni ma bu yow de boo doon lim ci li nga am ci sëñ Touba. ci man ngay tambalé té di nga tuddu ñu bari man nak buma doon lim buma tuddé sëriñ bi duma mëna tuddu a keneen wala kuma tudd da koy bokk ak sëriñ lool lepp lam ci jublu xam na ni wuñ leen fenn waaye dafa bëgg noonu xam suñu bop ñi ñu andalit xam ñoñu ñi ñu doon ndax des fois nga dégg ay kaddu yu jog yo nga xam kenn du ko wax sab sëriñ bi nga bi nga suku jébbul té ya nga koy wax ko nit suku sukk ci ba té nit lepp lu mu nat Euh, ba du ko def boppam bu fekkee jullit ak xan nga te bëgg sa jaamu yàlla yàlla nangu ko war nga koo natt ba doo ko teg ci ci jëmmu jeneen waxuma sax sab sëy hmm. waaye waaye doo ko teg ci jëmm jeneen ndax nit kenn ko sa jaamu yàlla sunu borom di ko nangu ëllëg te du ne li nga yéene sa bopp da koo yéene say moromu jullit amul ma bëgg nag nit ñi delloo si seeni xel bu baax te xam ne ku ne li la yàlla may yaa ko xam te itam lu nit di am ñu ne ci nangam la koy jëlee loolu itam defe naa ak ñàkk xam munu ko wees sëñ Tuubaa di sa maam jur sa baay wala mu jur sa maam wala mu wala mu jur sa ndey nga am nangam ñu jàpp ni ci nangam ji nga ko jëlee wala diwa la ko jox wala nangam loolu ay caaxaan la ndax kenn ku nekk. Serigne Touba mi la yàlla boole yàlla defal na ko loo xam dootu dakk bu mukk defal na ko lu lu lu musta defal kenn te dootu ko defal kenn illa qaadallaahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin lastu asukku abadan fi kaw ni jaaral ba di ajaban fi fi kaw ni waaw yàlla defal na ko lu lu musta defal kenn te dootu ko defal kenn kon nag kookee képp ku seqi koo ci moom lépp loo nga xam ne yaa ngi koy am boo woon ba ci digg mandi nga toog fa aju woo ci lenn ci dara lu may toog nekk ko te la mu digle nga nakk ca la nga bëgg lépp Serigne Touba dina la ko defal moom moo wax ne ku soqi koo ci man te jub aw ci li may digle seenu ñu la ci lañuy tere bul def dara maa lay yoral sama bopp kon nag nit ñi nañu xam ni am na ñoo nga xam ne li ñu am du ay dañoo bokk ci dara dañoo jiital yi dañoo def naa dañoo nangam ak nangam wala dañoo ne ci kër xalifa wala déedéet tudd noonu dañoo am ay cër ci Serigne Touba am wërsëg yàlla jox leen ko ndax lu ci nit am ba mu ba nga di ca wax am na ku taxaw fële gëmul yàlla gëmul dara bu dee taw sax muy saaga sunu borom mi ko bind te teewut yàlla jox ko wërsëg wooyu kon nag aajo na delloo si xel yi te ku ne ñu yéene la la la yàlla defal ndax sëñ de jàngale na ba tey waxoon na ne ah, man de fépp fu yàlla def dara yéene naa ko ña ko yàlla defal te du ma xatal lu yàlla yaatal yàlla li mu yor du jeex kon jërut jéem a xatal di wax jiw fii la jógee ñii la def ak lii am ak nangam

man nag man xamuma may wax te li ma gëm waxuma ko man li may wax moom laa gëm loolu laay dox ci laay wax tey tam ku ma vérifié di nga fekk lii may wax ma di ko def ñi nga xam da ngay wax ba eggal ñu ne la muy wax gëm ko koo xam ne la muy wax jàpp nga ne gëmoo ko vérifié ma sama tracé fi ma jaar ak ma dëkk <laughs> man du ma wax lu ma gëmul tey itam lépp lu may wax fas naa yéene mu nekk njariñul lislaam mu nekk njariñul yoon wi waaye mu nekk ndamul Cheikh Sidi Muxtaar hmm. ndax man ku ko yéene ndam laa te xam naa ne sëñ Cheikh mi ku ko yéene ndam ndax Cheikh Sidi Muxtaar nit la koo xam ne kuy bëgg ku baax war koo bëgg kuy bëgg ku nangoo liggéeyal sëñ Touba war koo bëgg seet loolu mag mu am juróom-ñetti fukki at ba nga fi toogee léegi luy luy bëgg a jege ñaar fukki milliards ak nangam jaar ci sa loxo nga bàyyi ko mu jàll du man mii du keneen du du amul kenn ku mën a wax li nga xam ne moom la ñuy indil njabootuk sëñ Touba gi mu du ko séddale sax wàllu sëñ Baara da koy delloo ci njaboot ci biir njabootuk sëñ Touba gi kii ku sa njiit ah, war nga koo ñaana war nga koo xool waxuma dara mais lislaam ji tasaaroo woon du ma wax sax tasaaroo waaye lislaam ji réeroo yu ndaw yu ci amoon yëpp mu dajale ko lépp mu nekk wenn say doon benn baat ñu umpalanteetuñ ci dara di jógandoo di fekkandoo di waxandoo loolu ni ko suñu borom santaane ci alxuraan mu jëfal ko ko képp bu ko yàlla fayoon lool dong doyoon na liggéeyub sëñ Touba ci ab liggéeyam waxuma nag jumaa ji ca Ndakaaru waxuma nag jumaa ji ci Touba waxuma këri sëñ Touba waxuma université yi waxuma yeneen ak yeneen nañu ko ñaanal mu gudd fan te ñi nga xam ne da leen a joxi cër jox cër ya mu leen jox di leen cee liggéey loo nañu leen jàppale ci seen cër yi te xam ne loolu da ñoom samp sëriñ bee sëriñ bi bu joxañee nañu xool fa mu joxañ ku xamul foo jëm boo dajee ku xam fa mu jëm te boo ko toppee mu yóbbu la fa nga jëm topp ko mu yóbbu la fa nga jëm te sëñ Tuubaa xam ne fu mu jëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah daaru nayim euh, daaru nayim nag sama ñëw fi tey ak yees lu waat loo ak barkeelu ndax barab bii nga xam ni moom la sëñ Seex Aliou di woote fii lu ma mag ci samay wayjur dafay indi woon ab taawam ak i rekkam sëriñ Moustapha Fall ak sëriñ Bàcc ak sëñ Fallou ak sëñ Idaali fii lañ doon dala alxuraan moom samay mag kon samay jur lool indi woon leen fi ngir ñu barkeelu kon man maa ngi ci barkeelu sëriñ Alaaji ñaan ak Baye Mat ñaan ñi nga xam ni moo leen yaroon fii itam maa ngi ak téere boo xam ne nii sama baay lañ ko jox kii moo bind téereb kaw bi kii jënd bind téereb suuf bi ngir wëllëre Touba Fall daanaka daaw daa nañ fa nekk ak sambaay ci loo xam ne nii bëri na waaye li ma fi nag tey maanaam yokk ma yokk si xal yi ndax bëriwu jot waaye nag yoon wi moom fu fi waaye doxale rek man jot googa dootuma ko am bëkk bi bi ma déggee ngeen di waxtaan ci barab bi bay wax mbirum raay bi fekk na 2000 laa ko filmé woon ci Thierno Ndaw mi ci Baye maajoor mi ñuy expo tey ca daaru ca Madina gu sëñ Mbàkke Madina mu wax ma yi nga xam ne moom la ci xamoon la ma doon leeralee bi nga xam ni Cheikh Ibra Fall ñëwoon na fa te fekk leen ci kilomètre 20 muy xuru Mbàkke nee na bis boobu sëñ Moodu Mbend moo ko doon dawalal keroog maa ngi am mag ñoo xam ne nii Cheikh Ibra dafa jaar dem gébb waññikuwaat ñëw fekk leen foofu boobu moom këram mu ngi woon maanaam xuru mbakki amoon na fa kër jamono yooyu moom Cheikh Ibrahima Fall dañoo wax ni sax maanaam xuru mbakki googu moom la ko sëriñ Touba njëkk a sañ ci waaye dafa am booba ak desug dégg ndax sëñ Touba da ko ne woon nga dem sañ ca li ma nja mu dem sañ ci njakkar ma jéy yi fekk fii ñuy wax xuru mbàkke njagam mu kan la tudd léegi mu dal dem sañ ci foofa njëkkar ma jey motax sëñ Mbay Jaxate jitu ko fa waye Cheikh Ibra moo njëkkoon am ndigal li mankal yëpp bil janaab alfahmu janaaba naibu dawla assaida ala dawla المعتبرة الشابكة الأول ألا وهي الظافرة الماجدة الباسلة في النار وما جرى مجراه يوجب ما بعد أني أعترف لكم بسيادة الشكر والناس كلهم كذلك بما عمرتم الأرض ومعتم الأرض أتى تمكن كل ذي حرفة بحرفته كما أهب حارسهم ورائعهم هاجرهم وبادي ولذلك أطلب من سيادتكم أن أبنى مسجدا جامعا في وطني الأصلي الذي هو مسقط وحشي ورعوز أبائي الماجنة لأن من مطالب شرعنا الإسلامية أو شرعنا الإسلامية أن يكون في كل بلد يتوطنها جماعة من المسلمين لا ينوون الرحلة منا أبدا أن يبنوا فيها مسجدا جامعا يقيمون فيه الجمعة ولذلك لما فرغت من البناء الجربلي طاحت نفسي إلى بناء ذلك لأنه هو الأولى بتقديمه لما سكت إلى أن الحال اقتضى تأخيره فأخرناه والمرجو من سيادتكم أن توجهوا إلينا شانعا عاشقا ناسئا لا يخون ولا يخص ويعبس منا آه، مشهورة تامة إن شاء الله بالغة ما بلغت وهذا كله بعد اسمكم المعمول بل المقطوع به لما أعدنا فيكم من رفع الإسلام وتثبيت أهله دام مجدكم وبان فخركم وإلى فلا أرى إلى سعي برعيكم والسلام على من اتبع الهدى مستكتب هذا الكتاب كاتب عاصي الحروف أحمد بن محمد بن حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julli bi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi fi daje di nay goor ñi ak jigeen ñi nak ñi ak ndaw ñi tay siyaare ñepp di gëreem ñepp di sant ñepp ci dajje gi ñeen fi dajje tay rek tax ngeen dajje fi ñoo ngi jiital na ci nuyoo bi Seydil mi nga xam ne mooy kilifa murid yëpp tey te di ko ñaanal sama borom guddalu fanam wéere li cëram moom mañ seen seex moom yi nga xam ne mooy Seydil Mokhtar mas na may waxtaan ak moom te defagul lii moom booba toogul bi toogaay bi mu toog ma ne ko man de sëñ bi am na lu ma jaaxal ci yow ma ne lu mu doon ma ne ko bis boo doonee Seex Ahmadou Bamba la ngay yokk ci lu baax ci lii ngay jëf xawma ma man naa ko ah loola nag ba tey mi ngi koy jëf ndax xam naa ne mboolem xew-xewi diine yi moom seetu ci sax ah, murit ak tijaan ak xaadir rek laayeen ak leneen fenn foo xam ne ma nga yëngu te lislaam rek tax ma yëngu loxo ma nga ca ah, baata ma nga ca taxawaay ma nga lislaam rek ko ñor sëñ Bamba ko ñor ak bokk ko ñor lu baax rek ko ñor ña moom sama borom guddalu fanam wéerali cëram te dëgëral ab taxawaayam te àggali yéen yéen ci lislaam yëpp taanu ko bokk yeeg taalibe yi di teg ci nuyoo bi nag borom kër gi yi nga xam ne tey moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha di Cheikh Ahmadou Mokhtar ma fa Touba ak ñi mbokkal sëñ Modou Moustapha yi ñëpp di nuyu nag itam ah sëñ Abdoul ñi nga xam ne moo fi nekkal tey sëñ Cheikh Mbacke ak njabootam gépp di nuyu Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha ak mboolem doomi sëñ Modou Moussa yëpp nag boobu ma kenn ak njabootu sëñ Touba gépp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare e di ci teg nag kilifa gu tedd gu baax gi mm-hmm. e, di wax dëgg yàlla sunu doom ci aada tey sunu doomi sëriñ ci tarixa mm-hmm. tamat ko sëkk mooy kii ñu tuddee Cheikh Ahmadou soxna xari maam yi nag yaaba mi baayam ak aminta loo ndey sëñ Modou Moussa bokk jenn ndey waaw noonu laa jaanee ko jur ah xarima moomee nag li tax ma man cee ak Samba Aminta ñoo bokk ndey ak baay ak ndaag Samba Aminta leen mag Samba Aminta jur pend bu wee ndey sëñ Omar Mbakke garabagal mii ma jur xarima ma ca topp ci Samba Aminta ñu bokk ndey ak baay moo jur sëñ Modou Moussa mu jur ñii ma lay wax ndaag ma topp moo jur Masamba Gàdd mu jur sëñ Moor Jàndam mu jur gaa yooyu baax yooyu soxna Jóob mu jur sëñ Abdou Fatah moom mu baax mi toog tey mu wut sëñ Bakki soxna loo waaw Marema ma ca toppit mu jur sëñ Matar Marema mu jur sëñ Madi Basi la ñoom ñooñu ñoom ñoo bokk aminte yàlla saa xewar faal ma cubb ak sëñ kokki njege isa jiy loola waral nag loo lii ma mën cee duggee loolu ah sëñ Cheikh mii nag dama dulu ab géwalam ba mën koo koo a topp fu ne ndax maamam ji nga xam ne mooy euh, Matar Ndumbe euh, euh, Matar Binta mi nga xam ne moo jur Aminata doon day sëñ Modou Moustapha ak Modou Binta ñopp toppante te Matar Binta moom mooy ndey sëñ moo jur ndey sëñ Modou waaye Modou Binta moomee nag mooy maami Seex mii te Modou Binta mu sëñ Touba jógee na Louga ŋàbb tànkam di ko siyaare ji ci kër ndaamu Modou Binta googee hmm. te kooku moom mooy maami Seex mi keroog wax nañ ne sëñ Mbaalo Kebe bàyyim juga ak sëñ Ibra Kebe Ngiro ak ku ñuy wax Alaaji Masamba Soxna ña ko doon gunge ca dox ga te sëñ Tuubaa nga la ŋàbb jóge kër Alaaji Masamba Soxna fa fii ñu ko siyaare ji foofu maam maami sëñ Cheikh mi ba daam loolu def na ko tànkam gannaaw ba nag delluwaat na waa war waaye yoon daal ñooñu la àndal wax na ne sëñ Omar baax moom ak sëñ Daaru Asan Njaay ñoom ñëpp ci yoon wooye lañu àndoon te booba maa amee sëñ Cheikh mi moo tax sëñ Bamba jóg ñooñu ñëpp àndaale mm-hmm. kon baax na lu jiitu lii nag moom waaw wax dëgg yàlla baax na bu yàgg a yàgg waaw waaw ah te itam mm, yàgg gën moom dana tax a gën waaw ah, ndax ah, dafa am ku laaj sëñ Tuubaa loo moom dong ko ko mas a laaj ah, am na lu mu ko laaj ne ko ndax sëñ bi dama doon laaj tuuti loolu xawma fi daanu kat la sëñ ko lu mu doon ko dama doon laaj rek ba xam ndax dangaa defe ne yow rek a baax sëñ bi ne ko dee loolu de defe moo ko mu ne ko waaye nangu nga ne baax am na fa neen mu yaatu na lool mu ne ko dangaa gën nag yow lu baax yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yaa gën gën nag dafa gën baax na baax gëne la neen kon yaanu gën waaye gannaaw nangu nga ne baax am na nag ña baaxoon ba nga feeñagut ba nga ba nga feeñee sa baax gi nga dimbali len bañ ngo and ak yow ba nga motali len bo wiyee ku leen gën mën la am waaw loolu nak la bëgg a dama bëgg nga xam yow da nga nu gën waye ku dul yow lo gën waaw loolu nak loolu nag dafa am ci gaay yu baax eh, léegi nag Seexul Xadim moom mom nga xam mom la sëñ bi eh, màggal te nga xam mom jitu jiitu ci ñooñi eh, sëñ Abdou Salaama ca topon waaw sëñ ali topp ca sëñ Ahmad topp ca ni ko bindé sax du non waye noni ma ko ni la Seexul Xadiim a mag ci saahir sëñ Abdou Salaam topp ci sëñ Ali moom yi nga xam ne toog na bay Seex Moustapha topp ci sëñ Ahmad moom mi toog cee topp seen yaay amoon na fi ñu baax ñooñu te kenn ku ci ne daa nuru sëñ Modou Moussa jëmba ba boo gisee da ngay defe ne sëñ Modou Moussa nga gis ah man dara ba dox ba àgg ñu àggit kenn ku ci leen def nga lu doy sëkk ci roytaay ci royukaay def nga lu ja lu jara ñeexe itam waaw ndax sëñ Modou Moussa daa sëñ Bamba ma jur de ñu ne ko ballay sa dëgg la mënoo dégg naa ngërëmam it ñu ne ko waa ah, Mbàkke man waaye juba ma doy ah, moo ko wax te moo jur ñoom ñooñu moo jur te jub nañu loolu nag doy na dëkk bii ñu dajee di màggal bis bii wax nañ ne 36 la ko Cheikh Moustapha sanc moom la jëkk a sanc gannaaw ba fi sëñ Touba jóge ci ne nag lam daa liggéey lépp dafa fas yéene waa liggéeyaaral sëñ Touba liggéey boo xam ne bi fàtte na fu mu mas jaar si diggante Jolof ak gànnaar ak leneen lu mu ko mas a defal sañ ci tindoo déeg ñaaxee ne fu ne mu may fa junni yu bëri ko yót ko ko waaye nee na fas na yéene liggéey bu yees ba muy jëkk tàmbali sëñ Tuubaa Daaru Naim la ko tàmbali fi la ko fas am na fi yaari at junni yu bëri gerte bay na ko fi sooga dim ta eh, gorta yëf ñeent fukki kilomètre yóbbu fa seex yooyee dëkk boobee bi nga xamee bi dem na fa min neuf cent ay trente neuf ak la fa daal di yebal nag doomam ju baax jooju nga xam ne moom da koo bëggoon a bëgg a bëgg bëgg ba nga xam ne dégg naa bëggaay masaatoo sax mu di leen xool di ko xool di xool sëñ Aliou ba mu yàgg mu fab lëf di ko muur ñu ko xam man waaw dafa am sedd lii dafa am sedd moo tax ma di ko muur sarbet bi yéeg waaye jubloo ci rek te yërëm ko bëgg ko rek a tax e te sëñ Aliou moom daana ànd ak sëñ Mahamadan Xayri Lo 1939 ah, jooju maanaam ay 40 40 rek nangam nangam Euh, booba gone yi tuuti lan la ñuy ñëw foofu waaye sëñ Omar bu leen masa di lalaal ak a defef def ci man de gone yi mënuma leen xool ngir seen baay waaw ah, seen baay danoo jaxasoo lool ndax bokk na juróom-ñetti at bokk nañ ko benn lal maag sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou su fi daaru Halimul Xabir noo bokkalum néeg noo bokkalum lal bokk na lu bindi ñeent fukki kéemi yu manqué ñaar ñetti ñooñu ko ne bindal na ko sëñ Tuubaa noo ànd gànnaar noo ànd jolof noo ànd fépp mosuñoo tàggoo ci dara soxna soo si nga xam nag ne it moo jëkk a wàcc fii di suñu noppi gaay yi sëñ Aliou jëkk koo yor sans mag ju jigéen la aawaloon loolu tele bi sëñ Aliou xamuñu ko seen yoon niwu ci kii nag dama ko naan dëgg la sant naa la yaa ngay góorgóorlu waaye mag jëkk sa kër bàyyi la su fekkoon doon loolu moo la jur te ji li ma lay jege jege fii bokk danga ma fi gën a fonk déedéet soxna Fatou loolu soxna Aminta Mbacke ko jur Aminta Mbacke mi ma bokkal benn bàyyi sëñ Oro Mbacke ko jur Faati Mbakke ma jur Aminta Mbakke soxna Faati sëñ Tuubaa ko jur te moog sëñ Mourou Moussa bokk na kooka mooy aaw sëñ indi kooka nu bokk benn baay loola leer na waaye nag yàlla dogal lii nag kon nag kër gi am na ci lu ma xam sëñ Aliou nag bi ñu ko fi andee 1939 ba même sëñ Taïf andi ko fi itam nekk gi mu fi nekk nekk ngor la nekku euh, jom la nekkook fayda la ndax lu dul liggéey du jaamu yàlla mosu see sax mel na koy mënatu te lépp lu mu fi mas a liggéey lu mu mën a doon ci adduna yónni ko sëñ Bourou Moussa mu jox ko sëñ Touba maanaa def ko ci liggéeyu sëñ Touba bi rek la ci jublu waaw ku juboo woon ak bokk yëpp la moom sëñ Aliou ñett ñooñu ñi nga xam ne ñoo bokk ndey te kenn jotu jey defub xalifa yi lañu waroon a def lépp sëñ Aliou defaale leen ko ku bëggoon bokk la ku am fayda la ku yaru la ku amu fit la am xam la jeexaloon na téere tey dara saf ko lu dul ak taalibe moo gënoon a rafet ci mboolem nit ñi ku rafet na moom yumbur xanaa yoon nañ te yàlla yusufa ni la silvisé ni la amee wërsëg waaye bëggul dara nag loo fanaan ci loo xam dafa guddee ñoom bokkut gaa yi nga xam ne dañoo bëgg xaaj ñoom waaw dégg nga waaye waa ji nag ni mu ko nuyoo sayri ni la ko nuyoo bàtti noo ngi ko ñaanal sama borom guddalu falam wéral li cëram te àggale yéenam ci lislaam am na yar am na tegin am na ngor te na fit am na xel am nag taalibe bëgg na bok loolu lépp xam naa ko ci moom te loolu yi ka téewut maa ngi na jaayam téewut fii mu ne maamam laa sëñ Modou Moussa moom sama bàyyi bokk ndey seen i ndey bokk ndey te sama bàyyi sëñ Touba bokk bàyyi seen ñaari bàyyi bokk benn bàyyi loolu lépp doon naa ko ci moom waaye loolu andi moo fa jëkkoo ma fa indi gis naa fi personnalité yooyu it sëñ jur ko taxul leen mu ñëw fi jur ko moom dong waaye moom mii de na ko wóor na lu muy yëngal ci yoon wi yàlla jàmm lu muy yëngal de moom nit ñu baax ñee koy ah lo rek lay don de te kat mag laa te bari naa xam-xam lol bari naa lu xam lol amna xam-xam ken ni ñi mi ko wax ndax ñu la rawa ngi fi ñu jangi gànnaar Fuuta ak furee ngi fi waaye dal ay lama xam ko ko ko jamool dana la ben te doon ñaar wa ndax doof juruma doof te sama ma ju fa Bamba ma tuddu dama fer ñu boole ma fasuna lu gol sama tëkkaale yaay ak ñaari taalibe ak sama mbayum baay jébbal ma sëñ Bamba ne fii sëñ Touba nekk tey néegam boobu ñu ko denc sëñ Touba ci digg néegam lañ ko denc nee foofu fii laa ko fekk keroog ñu boole maa bagage yooyu jébbal ma sëñ Bamba ma fanaan ak moom ci néeg ba asamaa ma nee na ma xool ko mu nuwoom sama baay lool ci suba moom wooloo sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou leen ne xam ngeen kii ñu ree ko bàyyi kii a kii seen bàyyi nee na booba ak jant koy bi dellu moo fa Mbàkke Kajoor keroog bañ ma joxee sëñ Touba ak léegi te Mbàkke Kajoor bañ ko seppee woon jox ko sëñ tubaa te delluwut Mbàkke Kajoor danaa wax bu ñëpp meloon na man kenn dutu am kër baay ndax keroog bañ ma ñëwee sëñ Bamba léegi dellu ma sama kër baay man mii nga xam ne am caatam laa def fukki kilomètre ak ñett yu tegal moom naa ko yoo xam ne ku fa ne maay sab sëriñ te ña fa nekk ay daaray laxasaa yi gënuma ca kenn ndey te waxuma lu leen fa indi it kon sëñ Tuubaa lu waaye def ngir moom ah doo ko rëccu waaw xëccuwuma dara man Mbàkke Kajoor ndax xaw ma fa dara doonu ma fa dara sama baay ba ma fa ju juróomi atam dañ ko jox sëñ Tuubaa waaw léegi nag lii fi dajale mbooloo mi ah sonn taxul a jariñu sonnal ko mat a taxale jariñu loolu sëñ Tuubaa ko wax danoo toog ci kër sëñ Basirum sëñ Tuubaa fan fan Ndakaaru ci kër ngoo gi ci Kolobaan am koy jàng gaa yi jàng ba mu yàgg am kilifa gu jóg ne leen waaw leen góor waaw leen góor ku sonn son jariñu ko sonn jariñu sëñ Basiru ne ko wax loolu ñu ne ko sëñ diw mu ne ah loolu de wax na ko waaye nag daa wax na la sëñ Tuubaa wax la sëñ Tuubaa la daa wax na sonn taxul a jariñoo la adduna ku fi ñëw sonn laqataxa laq naa lisaane fii kabin yàlla bérul ko kenn ku fi ñëw rek sëñ bi def na nga waaye nee na sonn nag moo tax ab coono am jariñ waaye ko sonn te sonal ko ma te sonal lu tax nga jariñ wax ne aboo jahlin de daje ba ak yonent na loolu yëfe daa sotti ba jant bi bëgg a soñu mu ñaanaan ñu delloo ko ci tisbaar te keroog ko ànd ak aboo ba jant bii ma koy waxtaanee yéen ci coono yoon nañ loolu sëñ Tuubaa kon nag sallallahu alayhi wa sallam ba jant bii nga ne tey ji mbégte moo tax noo ta yo doole nga ngeen tabli boo ta lañ la taxoon ñuy sonn àggaguñ ca kon ku sunnu nekku fa dañoo wóote kuñ doon sonnal kon sonn du ta a ñu sonnal ku ma a sonnal la kay tax a jariñu moom mii nag sonn na lool waaye daa sonnal ku mat a sonnal doole yi ko sëñ Seex moom mi wax ma dégg ñu ne nee ko ku bokk ku boot bukki xaj ba wala waaye duñ la mat loolu sëñ Cheikh Mati lay wax na ko wax na dëgg daa wuutu maamam te na ko sëkk waaye baayam da la wax sama baay wax ne moo ko wax nuróo naag loolu nee na daf na woo ban ndëkk ba ne na ngeen góorgóorlu ci lu baax dégg ngeen ko nee na ko waaw mu ne yàlla day bëgg na ko def lu baax lool a koo gënal te def lu baax ak bàyyi lu bon nag dañoo jege waaye bokkuñu fi mu ne ne def lu baax te mu wóor ne boobu lu bon waaye ku mu wóor ne ba nga lu bon rek jërëtul lu nga lu baax ku ne ci lu baax te sax te nag ak fooko ko war a defee koo mën a doon yëgal na loolu safaan jege jege jege jërta mooy ti jërta ti taxoo ko jóg waaw dégg ngeen loolu ku ne ci lu baax te sax ta loolu ab safaan jege jege jërta te jërta ti taxoo ko jóg loolu waxi sëñ Bamba ñooñu ne ci lu baax lañ nekkoon biñ fi jógee ñe wut si coote lañ nekk moom ba agsi ci loxoom moom mii kon na yàgg yàlla na yàgg ci loxoom te woote bi yàlla na àgg yàlla na yàgg lool dimbali ko te dimbali nu lépp loo xam naan na ko ci ci ci ci bëgg ko liggéeyal sëñ Bamba ci lislaam yal na ko sama borom may katam bi ak ñëw ak fan te defal ko ñëpp eh, ragge xol ak ragge yaram rek nag moom la moom mbindif li am noo ngi ñaan nag ci dara ji yeneen di sallallahu alayhi wa sallam barke sëñ Bamba raa yaari ragge yooyu lu ci bàyyi indaale fii booy dem na nga tàggoog moom sama borom saafara ragge xol yëpp te saafara ragge yaram yi sëñ xaw ma lu ñu wax waa Mbàkke Kajoor waaye sëñ Tuubaa teg na fi bara waa Mbàkke Kajoor ndax sëñ Mbàkke Kajoor dong la daa wax bàyyi sëñ sañ neen bu nee sëñ bi sëñ Mor Anta Sali lay wax bàyyi sëñ Mbàkke Kajoor lay wax te keroog ba mu sañ cee Tuubaa baagal it dafa yónni maam Ceerno sëñ Mbàkke Buso ne di jëli ko Mbàkke Kajoor yónni ba mu dikkee ci nii boppam la ko jox dem ca nii sëñ Mandumbe waaw yëpp sëñ Tuubaa yi nodd ba dund bépp mooy liqaam sëñ Mbàkke Kajoor dikki jiite ko alaaji baara ñëw naa këram bëkk démb rek fekk muy bëgg julli yàlla na ko sa borom dolli leer mu ne bàyyi ñëw nga ma ne ko man kay du ma bàyyi kuy sëriñ Tuubaa moo ko sama ko ab jaam rek laa ma ne waaye waaye loolu defoo ko defoo ma ko yàlla ko def julli gii nag tey soo ñëwul jiite kenn du jiite ndax sa maam ba mu fi ñëwee moo daa jiite sëñ Bamba ma ne ko ah def na lu rëy de mu ne ah loolu la sa yoon de bul dugg foofu it dikkal jiite ñu rek keroog maa ko jiite waaye américain yi dikk nañ fii ne sëñ Abdoulaye nodd yi sëñ Bamba daa nodd juróom benn weer gis nañ ko fi danoo ko bëggoon a seet lu ci noddul téeméeri at yu tofal na wàccaawaat ko ba ñëpp digg kaddu sëñ Bamba ci noonu sëñ bi Abdoul Ahad woote waxtaan ko baatu sëñ Tuubaa te wax ko nit ñëpp bañ dajee buñ ko defee adduna tukki loolu kat dara jël a kon bàyyi na sëñ Mbàkke Kajoor moomee eh, sëñ Tuubaa da ko ne woon daara ma ndumbe laay dem yow nag yoral saam nekk daara sëñ ma ndumbe jë sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Tuubaa demoon nangu nangu ko am fa juróom benn weer ca digg néeg ba lañ denc sëñ nii sañ bakki Kajoor bii mu nangu ci sëñ tubaa bind fa ñaari kaamil jiite fa sëñ Tuubaa juróom benn weer ci digg néeg bi lañ denc sëñ Tuubaa te looloo ko waxoon ko ko nag ñooy waa Mbàkke Kajoor kon nag moom ñii def nu ci dugal noo tax nu dugg ci waaye man kat du ma maam joo ne damay bëgg fenn cinquante kilo ci baa mbaajum leen loolu weesu naa ko keroog bañ joxee sama bàyyi sëñ dem na gànnaar dem na xumaag dem na mboolem mbakki mbakki yéegi yëpp foo gis ma dem fa rek farata te it képp ku mën a muñ daaru sa kër gelaw nga lu ma dégg dégg sa tur lu man mën a bokk façon yére du ma xam sa kër gis naa fi gars yoo xam ne noo bokk lépp dégg naa la ñuy defa mbàkk bool ak seenu turu si woog mel na président xamuñu fi gelaw a waaye du ma xam seen kër waaw loolu euh, euh, lu ma tudd kenn maa a waaw mu ko rek waaw waaw ah, dégg ngeen loolu waaw ah, ah, waaw loolu rek dégg naa seeni tur président leen ko tey sama mag lañ nekkal waaw ndax sëñ Bara Khourédia ma fa nekkoon lu baax lu ne def nañ ko ak sëñ Kane ku ne ba ca kee fa ne waaw siiw nañu waaye Alaaji ma Njaay jong mee ne lam def fa gënaw gal def ko faneen def ko faneen def ko faneen def ko faneen ah xanaa bu boobaa daa bëgg a yóbbaale ñëpp ba muy dimbali ñuy yóbbaale ñëpp de waaye moom dañ leen doon def loolu yóbbaale na ci ñëpp waaye lépp nag safoo ko ama ko gënal laal mooy ñëw ko rek sëñ Mamadou Moussa danaa ku ma fekk tey ma xam ne loo wax dëgg la waaw te képp ku sëñ Touba jur sëñ Saliou nee na ma gelaw ngal xam nga lu tax ma wutee dëkk yee ma ko déedéet ma ne ko sancoonub dëkk ba dañuy tukkit ku sant ku sëñ Touba jur duutu fa ñëw gelaw ngal nag mboolem ku sëñ Touba jur baa ci ànd bi lay ñuur la baa baa ñoo demee nañu ñëw nga gelaw léeg-léeg nit ne ma sëñ bi dinaa ne ko boo fa ñëwee mu tuut lool ndax gan ya fa xas am day mas naa toog bis boo xam ne bii ñu ne sëñ Omar ñetti oto kon ñu ne daw leen ñu dikk ne sëñ ma yaay seen ummi ak sëñ Issa Diène ak Balla Coro ñoo fa daje ban kër kër yi ñeenti oto kon ñu gaa yi daal di sorxoon ñu ne Cheikh Moussa Ka bàyyi ko tey fi dégg fekk leen fa ah, te ñoom ñëpp fa leen daa kon nag ku may digg naa ñoom gënoon nga tey ba toog ba déwén bu fa ñëw ndax xamul lu muy wàññi waagele ko waaye noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di sant noo ngi leen di ñaan ku fi ñëw ku ne daal na jàpp ne sa xol na sa xol sedd sam xel dal taxaw na sama borom dina musal ci lépp lu doore daa ñu la aar ba déwén nga dégg si waat dara doo daal ginnaaw ba nu santee suñu borom subhanahu ñoo ngi julli ci yonent bi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu borom di sant sëñ si di maxtaar bu baax di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ginnaaw ba ñu santee xaadimu rasul yàlla yàggal fi Cheikh Sidi Moxtaar ba naat yi mu naal naalal sëñ Tuubaa mu eggale ko eggale waale naa li ñu ko jiitu woon te lépp dëppoo ngërëmal Sëriñ Tuubaa tan ànd ko moom euh, ñu lay déggee bu baax a baax a baax sa taxawaay foo fi mën a dem ni ko waxee rek foo dem rek xam nañ ne nit dëgg dem na fa mbokk dem na fa ku bëgg Sëriñ Tuubaa dem na fa ku bokk ak Sëriñ dem na fa ku wax xam mën a jëriñ doomu aadama yëpp dem na fa ndax yaa ngi jàngale foo toll euh, ndax taarix dafa baax ci ñi ñuy xam ko ndax yaa ngi koy jële ca li weesu jaarale ko ci tey jëmale ko ci ëllëg te ñett yooyu rekk fi ne démb tey ak ëllëg lu baax ca démb euh, mën nañ ko biral tey yéen ñu dégg ko mu mën a njariñ am njëriñ ëllëg waaw loolu moo yor àddina kon ñu ngi sant bu baax bokk yi fi teew mm, abi silla mm, ak Matar silla doomi njóoba di sama waa kër yaaba te waa kër yaaba ña nga ne muy abi male euh, di sant bu baax liggéeyu Sëñ bi moom moom ma ci njëkk a jàppale te ba léegi xam nga boo amee ku mel nii mu ne la loo ma wax ma def ko kooku xam nga kon man ñàkkuma ah dafa ne ma loo ma wax danaa ko def te bari na ci morom waaw loo ma wax danaa ko def la ma wax xam nga ne kooku kon soxlaalatuma kenn dara waaw sëñ Axma sunu rek moom sëñ Cheikh Awa Balla yàlla boole na ci wetu ndey te ñoom rek mi itam doomu suñ doomu nijaay ak waa këram Alaaji Bas moom xam nga ko bu baax Alaaji Bas Seck moom itam di fi teewal fii si Alaaji Ousmane Kébé ak sëñ Alaaji Moustapha Seck moom itam ñuy samay samay nijaay moom El Hadj Ousmane Ousmane baax lool ci man waaw wax dëgg yàlla kon euh, ñu ngi lay sant bu baax sa teewaay bi. ok dëgg la dëgg la dëgg la kon ñu ngi ci euh, sant bu baax ci bis bi yi nga xam ne defe naa ne ñu ngi koy màggala yaa ngi ko gën a xam muy Cheikhul Khadim moom nga wax sëñ Abdou Salam sëñ Aliou ak euh, sëñ Ahmad Tindodi xamna ñom investissement yi xew legi ñom dañu investir won ci doom adamay wa lépp lu ñu def rek ci doom adamay lañ ko jaarale wa fi tundu yi señ aliou boy set tiyane ko yee na fam wa ñëlo fen gi pare gi ñëw nañ fi ñaar yoon def set setal te gisuñu ma ma leen di sant ñom itam bu baaxa baaxa baax euh peleg naar ak wolof ak sereer ñëpp la yemale tijaan ak murit ak xaadir ak laayeen ñëpp la yemale woon li doon def da ko doon def ngir jëmi xaadimu rasul te sëñ Axma it mhm. wàllu googu noonu wàllu tindoo ji ak Touba sax noonu laa def taxawu magam ji baax ji Cheikh sëñ Cheikh Gaynde Fatma di tudd doom yi di jullee néew yi nekk féete ko foofu ndax toolu sëñ Touba li ma koy wax dafa yaatu kenn ku ne am nga foo mën a liggéeyee waaw kon euh, ñoo ngi lay sant sa teewaay bi ak waxtaan wi nga def euh, di jéem a ñun njabootu sëñ Aliou di jéem a roy ca mag ña rek ci njàngale moomu nga xam ne jege nañu lool te mu simple lool ku ci xool ku ne teete nañ la teg nañ la ci yoon wi hmm, teg nañ la ci raay te saxaar defe naa ne bu jaaree ci raay eh, ci gaar rek la jëm waaw kon nag ñun teg nañ ñu ci raay bi ñoo ngi waaw ñoo ngi sant ñi fi teew ñëpp sëñ moo Mor ñaan hmm, moom it ñu ngi koy sant bu baax Ndiaga Ndiaye Ndiaga Ndiaye itam mi ngi fii wax yàlla ak ñi nga xam ne ñoo ne ci presse bi Mouhamed Diop moom itam sunu journaliste bopp ñu ngi koy sant bu baax ak euh, sëñ Ahmad ak ñoom ak euh, sëñ Saliou Lo mi ñu ngi koy sant bu baax moom itam ci teewaay bi. ñu ngi sant daal ñi nga xam ne jóg nañu xam lan mooy àqu àqu euh, àqu dëkkandoo xam nañu itam doxu mbokk gi te yow loolu moo la yëkkati xam nañ ko bu baax a baax fépp fu ñu la dégg rek xam nañ ne doxu mbokk la yëkkati ak lu baax ak sa xam-xam bii nga yor itam nga ciy baaxee doomu aadama yi ñu ciy jëriñ waaw ñoo ngi ciy sant bu baax.